littoral nekk bërëbu feexlookaay di la permettre ngay noyyi air pur bu naturel bëri na itam ñu fay ñëw ngir di changer les idées ubbi seeni xel wala sax di entraîner waaye nag ñu nemmeeku ne ñu bëri amatuñ accès ci tefes yu bëri li ko waral di ay travaux yoo xamante ni dañ ko fay amal lu ci mel ni ay hôtel ndax nag du ñëpp ñoo am dooley di fay hôtel ngir mën a nooyi air pur fii ci mameel bu wokkaam boobu la jafe-jafe la ñu nekk di dund itam ba tax na kii di njiitu SOS littoral ñi nga xamante ni xeex occupation anarchique rek moo leen tax a jóg di wuyoo ci turu Omar Diagne daal dinay àddu ci yooyu la jafe-jafe waa SOS littoral nekku fi lu dul pour saytu littoral bi littoral bi mooy peggu géej bi sa si géej bi ah nga xam ne ay euh, yoon dafa tëral ay loi ay dogal pour ñu ñu ñu ñu protéger ko ah waaw yoon yoonu Sénégal les lois du pays ak yoon yoonu bitim réew mooy convention internationale yi Sénégal nag bon toppatoo ñu dara quoi ñu looloo ñu nit miti boo ñëwee fii code de l' environnement xooluñu ko code de l' urbanisme xooluñu ko code de la marine marchande bi loi domaine public maritime ju nekk xooluñu ko ah, le code minier xooluñu ko ah, le code de l'eau xooluñu ko mais maanaam mais loi yi tënk littoral yëpp xooluñu si dara donc ñi ñi fii dafa am ñuy jóge fale si àll bi encore la ñuy jóge parce que ñun lébu yi littoral bi doonuñu si woon xam nga ma dañuy ñëw rek liggéey dem bàyyi kaax ñëpp parce que littoral bi àddina bi yëpp ñoo ko moom su ko defee ñi ñi ñëw si géej bi mais di feexlu di nooyi mbeex mi su ko defee ñu am wérgu yaram gis nga lébu seen dëkk dafa seen dëkkuwaay dafa sori woon géej mais aujourd'hui ay nit yu jógee en dehors de de Dakar xam nga seen i dëkk amul géej seeni i fiñ dëkk xam nga ñëw tiit alors di def lu ñuy prédation maanaam suufu nit ñi jaam et puis encore léegi suufu littoral dafa cher parce que bu ñu joxee benn mètre carré benn mètre bi un million lay jar xam nga loolu fi toog nii day dem sax deux millions ba trois millions comme géej gi mu ngi nii les pieds dans l'eau comme ni ñu koy waxee ñun nag comme ñun dañuy yëngu si littoral xam lan mooy littoral ah encore littoral bi jën yi si fii la ñuy nenee si littoral bi duñ nen biir géej mais boo géej bi te ñun lépp suñu cosaan mooy dem nappi géej ja jën jaay ah dunda mais léegi géej gi amatul jën mais immigration clandestine ñëpp gis nañ ko parce que ñan ñoo yóbbu ñi ñi mais moo lii affaire mais parce que amatuñu luñ dundee nit bu amul lu mu dundee dafay dem màngaani mooy li ñuy wax transhumance day joge fii ñax ñax ñax fii ñax amoon ba amu fa mu dem fu wuti ji fu ñax am léegi moo tax ñi ñi di dem aux îles des Canaries bu fa 1500 arrivé mais xamal ne par exemple 3000 personnes des nañ si géej bi parce que gaal yi mënuñu défier l'océan donc yii question nga xam ne si lañ nekk guddeex bëccëg moo waral SOS littoral juddu ñuy def nag lii kene di waxoon xoolal li ngay defal sa réew mais bul xool li la sa réew di defal mais sénégalais bu ne bu toppatoo intérêt am kese mais àddina tukki il faut que sénégalais yëpp jog xam nga réew mi ñun ñëpp ñoo koy tabax mais eh, waa bitim réew wala ay tubaab du ñëw di ñu tabaxal suñu réew euh, ñi ñu ñi ñu fi nootoon suñu naan noot suñuy maam ba léegi ma leen di bañ a pour balaa ñu may wax ne man damay contre ñi mais ñooñu noonu ah, ñëw nañ ñu suñuy maam jaay leen ah, après coloniser nañ ñu ñun fa fan lañ avancé ñoom seen i dëkk baax nañ mais ñun suñu doomu réew nañu toog fii ñu defar ci lii mooy suñu taxawaay taxawaay bii nag ñun ñii dañu yóbbu état du Sénégal tribunal bu benn du ñaar xam nga ñun bon ragaluñu état voilà parce que état bi ñi fa nekk technocrate yooyu ñun dañu jàng ñun ñu jàng donc euh, amuñu dara benn complexe bu ñuy kii et dafa am si état bi lu ñuy wax ay délit d'initié ay nit yu jubadi ñëpp jubadi wu ñu mais dafa am ñun jubadi ñoom ñooy foutre la bordel dans ce pays là parce que corruption rek lañ nekk guddeex bëccëg et on sait de quoi on parle littoral u Mamel bii ñuy wax Jean Lefebvre SOS littoral sonné na l'alerte depuis le quinze out mobiliser tànk tànk Wakam Ngor Yoff Cambérène ñu ubbi ko ba Yaraax ba Caaray ñëpp gis nañ suñuy video dans le net mobiliser la chefferie coutumière jéem a mobiliser les communes d' arrondissement parce que bon voilà acte trois bi moo may maire yi ñu war a saytu yooyu bien vrai que le maire d'Ouakam n'a pas compétence sur le littoral mais Barthélemy am na Diaz ville de Dakar am na compétence sur le littoral à travers l' acte trois bon Iba Faye ak euh, maître Tandian avocat bi mu àndal ak euh, Kële gasama ñii ñoo ñëw fii bëgg a toj blocosti bi bi mooy Euh, deuxième guerre mondiale fii armée yi daan ne daal ah bu ñu tojee blockpost bi ñu nangu si terrain saxiir Diagne bi nga xam ne suñu mag la suñu mbokkum lébu la pay lébu bi la bokk voilà donc Sahir mi du ñu nangu ñoom ñuy ñëw di jël 600 mètres carrés fii ba pare toj blockpost bi ñëw jël tali bi ba pare ñëw remblayer géej bi lii Iba Faye moo ma ko wax donc xam nga man moom moo ma ko wax je les ai rencontrés voilà man j'ai écouté les versions je lui ai dit grand dellul ginnaaw voilà grand dellul ginnaaw parce que li nga bëgg a def duñ la bàyyi nga def ko yaa ngi dégg léegi nag lii mooy suñu xeex ñun nag liñ bëgg a mooy réew mi am na ay kilifa kilifa réew mi la ñuy addu di artu surtout ñiy am compétence sur le foncier bés bu ñu génnee fii un acte pour Ibou Faye SOS littoral dina yóbbuwaat ñooñu tribunal dina attaquer les agents yi def loolu nous irons au tribunal et nous allons mobiliser les populations man mii di wax nii xam nañ ma bu baax ne sawar naa lool si yooyu te man naa ko dégg nga te ragaluñu tribunal aussi ñun du ñuy ñuy tëj fii et cetera man boroomi mbokk laa Dakar laa dëkk si il s'amuse à me toucher mais leneen la ñuy gis dégg nga wax je vous jure donc côté boobu moom pour moo wax leen ko maa ngi nii janox caméra yi man li may def ragaluma ko et puis j'attends qu'on qu'on m'appelle même voilà je vais dire ce que je pense parce que lii xaw si champ de tir bi xam naa ko. nañu àndax sago voilà nañu àndax sago parce que addina bi dëkkuñu fi parce que ñun li tax ragaluñu ñun dañ ngëm yàlla dégg nga wax voilà ñun dañ am lu ñuy wax takwa voilà suñu accoudoir c'est Dieu ah voilà yàlla moo tabax addina bi indi ñu fii depuis le péché originel parce que doom adama war nga xam lu tax ngay dunda ne ñu yéen liggéeyal leen ma sa sama addina waa ñu nekk fii di def du n'importe quoi di jiro waaw booy jiroo kay ba ba ñëw nga fekk famine am lébu yi loolu moo leen dal famine dafa am ñu ku nekk amoo loo lekk yow nga taaj sa bool ak sa njaboot li nga taaj doyul sax nga gis kenn kuy romba ak njabootam yor ay doomam sonn na lool sa xolu jullit ah mayu la nga bàyyi ñooñu dem nga ne leen ñëw leen ngeen bokk ak man sama añ waa ñooñu ñëw au lieu ñu dugal rek lekk lekk bu silwise ñu yëkki bool bi bëgg a daw génn kër gi yow looy def lii moo ñu dal loolu nag man loolaay wax xam nga et ñu bañ ñu indil fitna fii si littoralu Mamelles bi dañ fi teg suñu projet indi fi addina bi yëpp la promenade de Mamelles loolu kay rafet na te jekk na promenade des Mamelles lañ bëgg fii ji nañ fi ay gerte tubaab 150 rafet na. alors euh, dañ fi bëgg def ay bancs publics ñuy oo Barthélémy Dias mu ñëw jàppale ñu si di oo le ministre Alioune Ndoye de l' environnement et de l' écologie xam ne suñu mbokk la. toujours ma oo ko du jël téléphone am mu ñëw ñu defal ñu ay banc fii su ko defee yow boo ñëwee nga promenade des Mamelles ah soo amee euh, alaaji nga ñëw toog ak moom fii feexlu si géej bi parce que nooyi géej bi day tax nga dunda ah doo feebar. voilà lii daal mooy li ñuy yëngu xam nga. ànd ànd seex fulla ak fayda bu mat sëg nag dañ ne la loi est contrainte l'absence de contrainte est anarchie mais dañ ne nga baal ma ni ma koy dugali solof mënu ma ko si euh, tubaab bi laa mën a wax noonu ñu l'obéissance à la loi est le seul chemin de la liberté Max Pribilla mais après lañ indi la résistance ñu ne la résistance active ne peut être exercée que comme le tout dernier recours dans un cas critique lorsque l'on a épuisé tous les moyens pacifiques et constitutionnels gis nga bu ñu amee ay citoyens modèles ñu jog di jéem a liggéey seen dëkk ah alors ñu ñu ñu ñu ñuy jéem a topp yoon ay nit di jàdd fale jàddu jaaruñu si yoon mais mais mais mais mais loi daf la may xam nga nga xeex et bu boobaa ñun dinañ xeex ba xam kan moo ñuy téye fii ay borom mi mbokk lañ ah ay borom mi mbokk lañ on sait ce qui se passe dans ce pays là. waa ji ñu fekk ci bile kabaan juddoo wokaam lu bari fekk ko fi di ñu xamal ni jamono yi 1974 wuute na lool ak jamono gi. je suis né à Wakam grandi à Wakam je connais bien le coin parce que depuis 74 maa ngi fréquenté plage bi donc ce qui fait lu fi xew lu nekk fi la ma fekk. ci sama xam-xam bu gàtt. damay xam ne yàq-yàq am na parce que bu dul dara dañuy xool suñu mbokku pêcheurs yi déjà numéro un fa ñaareel bi fii dafa doonoon foo xam ne presque décor bu bu sauvage bu rafet la woon ay jamono dara amu fi woon y'avait rien man maay ki jëkk def kaban fii au Mamel mu ko defaan ay tubaab laa fi fekk li ma jëkk jox sax envie def ay cabane au bord de la mer c'était ça parce que dafa am benn màggetu tubaab bu tëddoon am maladie bu ñuy wax Alzheimer mu dem fàtte fi ay bagages am ci kaw dem ba mu demee ay 10 heures le matin jusqu'à 20 heures il n'est pas revenu ci laa jëlee bagage yi dencal ko ko bi ma ko ko dencalee le lendemain ma xool bagage li ci nekkoon xaalis bu bëri bu takkoo ci nekkoon mais jamono jooju maa ngi am conseil sama yaay laa dem laaj ne lii de dama ko forgeej xaw ma nag ndaj may piège xaw ma nu mu demee nii mais nit kii de moo ko fi fàtte mu ne ma ndax xool nga poche bi bu baax ma xool poche yi gis ci sa mu dëkkoon aux Almadies tudd euh, Robert Kijek nekkoon Air France à l'époque donc loolu moo ma jox envie nekk booru géej ndax dimbali ne ma jàppale ma ba maa ngi sant yàlla suñu borom. mais fii li nga xam ne moo fi nekk tey mooy jaay doole ak am xaalis parce que boo amee xaalis amatoo benn problème àdduna foo fëgg dañ koy ubbi ndax yoon dootuñu ko gis. Je suis né à Ouakam, grandi à Ouakam. Je connais bien le coin. Parce que depuis 1974, j'ai fréquenté plage. Donc ce qui fait que lu fi xew lu nekk fi la ma fekk. voilà. ci sama xam-xam bu gàtt damay xam ne yàq-yàq am na parce que bu dul dara dañuy xool suñu mbokku pêcheurs yi déjà numéro un fa jëkkee ñaareel bi fii dafa doonoon foo xam ne presque décor bu bu sauvage bu rafet la woon ay jamono dara amu fi woon y'avait rien man maay ki jëkk def kaban fii au Mamel mu ko defaan ay tubaab laa fiy fekk li ma jëkk jox sax envie def ay cabane au bord de la mer c'était ça parce que dafa am benn màggetu tubaab bu tëddoon am maladie bu ñuy wax Alzheimer mu dem fàtte fi ay bagages am yéeg ci kaw dem ba mu demee ay 10 heures le matin jusqu'à 20 heures il n'est pas revenu ci laa jëlee bagage yi dencal ko ko bi ma ko ko dencalee le lendemain ma xool bagage li ci nekkoon xaalis bu bëri bu takkoo ci nekkoon mais jamono jooju maa ngi am conseil sama yaay laa dem laaj ne lii de dama ko forgeej xaw ma nag ndaj may piège xaw ma nu mu demee nii mais nit kii de moo ko fi fàtte mu ne ma ndax xool nga poche bi bu baax ma xool poche yi gis ci adresse am mu dëkkoon aux Almadies tudd euh, Robert Kijek nekkoon Air France à l'époque donc loolu moo ma jox envie nekk booru géej ndax dimbali na ma jàppale ma ba mag yi muy dessalement bi et jusqu'à là où ñoom ñu ngi liggéey kenn xamul lu ñuy liggéey lan la xamaguñu usine gisaguñu dara mais ci biir loolu ñu ngi gën a dog di gën a ñëw nag di jënd kër yi nga euh, terrain yi nga xam ne domaine maritime la kenn amul droit def fa kër ah bu amee kër nag ñun ñi nga xam ne ay waa wakaam lañ dëkk wakaam mais suñu suuf duñ ko bàyyeex ñeneen ñu ji dëkk nag dinañ ci toog jéem a jariñu jariñ ba tey ci jafe-jafe yi nga xamante ni occupation anarchique mu ngi koy jur mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jaay ci wetu tefes bi lu si mel ni ay lakk jën wala lu jëm ci mbirum artisanat ñu jëlee leen fa mu nekk nag loo xamante ni yàqal na leen bu baax lu jëm ci seen wàllum revenu. xam nga ñun dañ ne woon fii di job woon ci suufee ci place bi presque ay ay six kabaan woon na fa quoi en fait parce que affaire wakaam la daal te fii jeune si wakaam suñuy suñuy grand ku ne jaar na fi quoi suñu façon grand yu ne jaar nañ fi te géej la boo xamante ne nii partout dans le monde ku ne xam nga placé Mamel ku ne xam nga placé Mamel tubaab yi façon xeet bu ne dafiy ñëw mais ñun yàlla dafa def na xam nga état bi moo ñëw ne dafay def benn projet day jël filtre ndoxu géej bi pour def ko ndoxu naan xam nga ñun soxlawuñu loolu quoi soxlawuñu loolu parce que ñun manqué wuñu ndox ba ñuy jël loo ndoxu géej bi di ko filtrer pour ñu koy def ay ndoxu naan waaw. léegi nag bii loolu noonu weesoo après si neen ñëw proposer loolu gars yi ba dénommager leen tamit ah dénommager lañ ku si nekk ay 3 millions na la jox te ñun li ndaa am fii moo ëpp trois millions li mu doon faj fii moo ëpp 3 millions quoi en fait. léegi après si nañ ñëw jox gars yi ku nekk 3 millions xam nga te doo xam tamit lan la def fii. parce que fii ay recherche yu bëri moo ngi fi ay recherche yu bari moo ngi fi man for façon xeer bu ne façon xeeru jinne bu ne for naa ko fii jamaa lépp loo mënti xalaat moo ñu fi ba pétrole boobu ñuy wax sax lépp moo ngi fii si Alaya bi mais ñun gouvernement bi moo ñu moo ñu moo ñu en fait moo ñu xam moo ñu sànkalu daal maanaam waaw te li mu def nii nag xam nga du dëgg du yoon parce que ñun fii na daa teralee suñuy waajur fii na daa teralee suñuy famille xamante ne dafa façon nit bu ne. façon ni bu ne xamante nañ feex moom man sama benn grand laa fa newaloon di liggéey ndijaay la sax si man di s'appelle Ibrahima Wade quoi kooku moom man amaana sax man li may expliqué nii sax moom moo ma ko gën a xam tamit quoi man fi laa nekk moom am naa fi ay trois ans quatre ans waaw tey jii nii xam nga jóge nañ foofu ñoo ngi ñëw fii xam nga di taxale fii sakos yi ñoo koy jaay banaan yi ñoo koy jaay xam nga ay yére olof defar ay butéelu aar xam nga mais lu doon am fee moom mënatuñu ko am fii maanaam ci gàttal yàqal nañu suñu liggéey lu bari moo tax ñu ñëwaat fii sax di jéem a taqale pour amaat loolu noonu waaw. non si man si man am nañ solution quoi parce que régime bii di toog man gëm naa ne du nangu loolu quoi parce que loolu place publique la ñëpp ñoo ko moom. nit amul droit ñëw ba si booru géej di ko def gis nga chantier yi nekk fii du yoon parce que léegi jàppate ne ne nit ñi sax amuñu droit pour ñëw wàcc si biir géej waaw xam nga il faut ñoom de vie quoi. hygiène de vie bi nag ñun fii nañ ko mën a amee xam keneen ak keneen xale yi di judd si ginnaaw ñoo ngi ñëw xam war nañ mën a dund loo xam ne ñun ñii sax liñ dund ñoom waruñu ko dund war nañ ñëw fekk lépp changé ko quoi. en fait man moom noonu laa ko gisee quoi. ginnaaw nag ba ñu dékkee population bi suñu micro ñu daal di wax seen xalaat ci boobule problème daal di nañu jokkoo itam ak ki ñuy wax Idrissa Diaw di ab environnementaliste moom itam mu daal di àddu ci problème occupation anarchique yi ñu nemmeeku ci tefes yi ak conséquence yi nga xamante ni mën na koo jur waaye itam mu gënoon mettre l'accent ci wàllum hygiène bi. waaw ah, xam nga occupation anarchique rek bu ñu ko waxee rek euh, mooy pëcc xoo ci biir dëkk. pëcc xóotam bu ñu ko déggee mooy lu neex waay def maanaam dëkk boo xam ne ña fa nekk di exercer seen liggéey euh, nu leen neex lañ koy defee nu ñu ko santine lañ ko defee lañ koy defee heure bu leen neex tam lañ koy defee mais loolu tamit li ko indi rek mooy euh, li ñuy wax euh, absence de gouvernance maanaam dëkk day am amee maanaam dëkk bu amul amee même kër sax bu amul amee day jaxase ko xotuma laa ab dëkk et ñi nga xam ne dañ leen fal ñu nekk fii ak ah, équipe technique yi nga xam ne dañ fi nekk pour organiser dëkk bi Euh, ñoom euh, dañu war a def euh, li nga xam ne moom lañ leen fale maanaam organiser dëkk bi parce que li koy indi tamit mooy xam nga suñu dëkku taax yi moom destination la maanaam ku xëy rek dangay gàddu sa saak rek jëm fa li la indi nag mooy liggéey mais liggéey tamit dañ koy dañ koy organiser donc manque de citoyenneté boobu tamit dafay indi pëccëxoo ci occupation anarchique bi ñu constaté ci dëkk yu mag yi. bu ñuy wax tamit ci wàllu littoral bi xam nga yàlla daf ñu jagleel 700 kilomètres de littoral. Euh, mais 700 kilomètres de littoral yooyu boo koy xool euh, ndox yu bon yeex euh, déchets solides yi maanaam wàllu mbalit mi yëpp presque foofu lañ koy këpp ñu bari foofu lañ koy këpp parce que amul benn traitement parce que eaux usées yi ngay gis yëpp ah, eaux pluviales yëpp seen destination biir géej la ci ci littoral bi lay lay lay lay jaar. li liñ ci gën a constaté mooy plastique bi nga xam ne dafay encombrer vraiment suñu littoral bi mais je pense que solution bi ñu développé ay ay métiers du littoral li ñuy wax ay métiers du littoral yu jëm ci wàllu écotourisme yu jëm ci wàllu pêche je pense que loolu dina gën a mën a dimbali vraiment ñu mën a am littoral bu bu set euh, littoral boo xam ne vraiment euh, dina dinañ ci mën a def li nga xam ne moom lañ jagleel métier littoral bi je pense que loolu lu am solo booy xool tamit xam nga dispositif juridique yi bari bari na euh, maanaam li nga xam ne mooy le code de l'hygiène mu ngi fii Euh, code de l'hygiène lu ñu war a woon a xoolaat la y a le code de l'assainissement y a le code de l'environnement et aussi euh, euh, li ñuy wax la loi du littoral tamit ñu jéem ko jëmmal vraiment jëm ko respecter vulgariser ko nit ñi xam lan la capitaliser ko gën ko comprendre pour mën ko jëfe pour am ay dëkk yu set mais aussi am ay littoral am littoral bu set. kon daal occupation anarchique bi ñuy amal ci littoral bi nekk na loo xamante ni sénégalais yu bari ñu ngi koy nakkarlu ndax daf leen di xañ yu bari yoo xamante ni dañ ko fa daan am lu si mel ni di fa féexlu di jël air pur wala di fa dem di fa entraîner ji ñenn ñi itam daan fa sukkandikoo ngir daan seen doole lu si mel ni di fa lakk ay jën wala di fa jaay lépp lu jën ci wàllum artisanat te lool noonu yëpp efes yu bari mënee suñ ko faa amati ndax tabax yi nga xamante ni ñu ngi ko fay amal bu weesoo loolu itam mu am ay conséquences yu bari yoo xamante ni mën na ko jox ci wàllum environnement ba tax na ñoom daal li ñuy sàkku mooy ñu dakkal bépp pratique boo xamante ni ñu ngi koy amal te mu nekk loo xamante ni jaarul yoon ndax géej bi géeju ñëpp la peex mi ñëpp la ñëpp ci war a bànneexu te du jar ñuy génne seen xaalis ngir fay